indi fii tey mooy li nga xam ne sénégalais yee ngi koy jooy ñun nag ñu ne duñ ko jooy dañ koy faj ndax Orange Money dafa jékki wàññi suñuy commissionnement avec 1000 francs juróom-ñaari nga ci mën a am tey kenn gisul dërëm bay gis 15 5000 francs client bee ngi fay 350 Orange duñ ci jox 28 francs ngeen foog ni li des fan lay dem France lay fanaani ñu ne lan mu teg programme boo xam ni mooy daf ñuy faxas jëliñu ci suñu réew jëliñu suñu teraanga comme ni ko suñu président waxee ñun jëluñu bato ñun demuñu ci désertu Sahara bi dégg xaaruñu ci benn ambassade dañoo gëm suñu réew ni ko maam borom Touba gëmee woon ni ko maam mi di fi liggéey ñu bëgg ñoo def ay walaakaana samp seeni moo ne fu nekk bu bu woo ko ay ay certains étrangers ak ay ñu nekk ay concurrent déloyal te ñu jëli fi ay ambulant ne leen nañu génn ci mbedd mi léegi foo tourné nga yaa ngi mbëkku ci ay kiosque orange moo ne gumba buy dox bu doxul attention mbëkku ci orange moo ñu ne nag loolu duñ ko nangu ndax lii mooy la domination coloniale lii kiosque yi bu ngeen ko xoolee jàppale ni lii mooy statut Faidherbe lii nag mooy mbuumu ñaama ngi dellu si waat te ñun Renapta dañoo woo état ci xeex bi état dégluwuñu ci ñu ngi ciy woo nag sénégalais yi xanaa nag du ngeen seetaan ñun ñëpp ñu def ñu ay walaakaana seen jarbaat ak seen doom yi ñu doon jël ci suñuy place ñëpp ñu di leen bàyyi ñu mujjee lan doo dem Europe doo doo yéeg gaal doo yéeg avion mais ci réew mi dinañ la fi toroxal loo xamante ne ne ca gaal ga dund ko ka nekk ca désertu Sahara dund ko duñu ko nangu dinañ ko faj ba mu wér ñuy woo képp sénégalais nag ngeen bàyyi Orange Money ndax président Khalil nee na ju jeez oublier Orange Money. Orange moo nay jeez. jeez oublier Orange Money moo moo nay jeez commencé ci yéen ñi ma jàkkaarloo yéen journalistes yi ban njëriñ la leen Orange amal crédit bu ngeen dugal mu ne leen dalal toon du leen tàggu nangu leen ko su ngeen enregistré numéro ñu jël ko ñun nag ñoo gën a dee ndax ñun bàyyiwuñ ñoo arnaqueur na da ngay dugal sa puce léegi mu wóor la ne ki lay woo am na ay renseignement te Orange ak ko jox tey ñu woo la sa compte compte ne la orange moo la ne comme sa cuisse yaa ngi koy doog a activé ah, tapé lii tapé lii ñu vidé sa compte sàcc gu mel noonu arnaqueur guddi arnaqueur bëccëg ñun suñu fonds propre la am faux billet bu ñëwee ñun ñoo koy encaissé manquant bu ñëwee ñun ñoo koy encaissé ah location ñoo koy encaissé connexion ñaa ngi koy encaissé boo juumee ci client ñu ne la compte boobu ah compte bancaire la te ñun suñu compte yi bu ñu defee deux envois yu successifs ñu ne ñu doublon africain yi di ngeen ñu bañ le ndax tey jii seen ngi yi fépp ci Afrique dañuy law di dem ndax ay bañkat lañ te dañ nag l'Afrique est debout dañoo sonn ci rêve yi fi mu nii réalité lañ bëgg dund te réalité ñoo koy mën may suñu bopp tey jii dañoo bëgg a suñu réew suñu réew la ñuy mën a toog pour développer kenn duñu def jaam ci suñu biir réew maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne nag jeez oublier orange moo nay